télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu animal ngir a saytu sama mi dundee. teew fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. nga mën a jaar jaar. danga ko seetaan bu la dara raw. Mm. visibilité dinga ko am promotion dinga ko am. nanga wane sa bopp ci émission jaar jaar mi nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. nga mënee ndax ñëpp xam waaw téléspectateur Ladoum TV ñoo ngi ci bloc E E ci box bi moom lañu taxaw fii ci terrain Ndofane sectoriel 2022 ñu taxaw un très grand champion ñu nuyu bàyyi ko mu nuyoog téléspectateur Ladoum TV gannaaw boo nuyoo gis nañ fi nga téye fi benn jeune mâle bu rafet tubaar fakal nga présenté ñu ko. Ah, waaw asalaamaaleykum waa Ladoum TV maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax. di rafetlu bu baax si euh, bergerie bi ngeen ñëw di bergerie Dabakh Malick euh, man ma nekk Maodo Malick Diouf euh, nekk Diamaguène Sicap Mbao si tali Maam Jaara bi d'abord damay présenter rek ki nga xam ne moom mooy jeune mâle bi nga xam ne moom laa téye woon léegi di turandoo xam nga turandoo nag nekk benn doomu du gaynde moom moo ko jur ñu naan ko Bappulo xam yaayam nekk euh, famel beneen femelle bi nga xam ne moom moo am taas bu noir bi si gémmiñ gi muy Asura kooku moo ko jur ak benn doomu duugaynde xam nga kon Asura la ñu boole ak euh, benn doomu duugaynde di euh, Bapulo ñu jur ki nga xam ne moom mooy turandoo xam nga maamam bu góor nekk ñaari kuy muy sama maal bi nekk ci baas bi noonu xam nga moom mooy ñaari kuy di doomu yaay ji nekk doomu Ferdinand moom mu nekk doomu Jogay. voilà kooku daal moom moom meññ ki nga xam ne moom mooy turandoo. ah téléspectateur Ladoum TV yéen a gisandoo turandoo mi turandoo mii fa mu bokk macha allah tubaar fakàlla kii nu mu mel bu mu jaaxal kenn ci élevage parce que boo xoolee capital génétique bi mu yore kan mooy sa maam rek du gaynde du gaynde kese kese waxuma nag nga dem si ñeneen ni mais du gaynde rek kooku dafa doy càmm macha allah. waaw waaw mu nekk encore surtout jogoy xam nga ne loolu du ay caaxaan du ay fo tey jii tey ñu ñëw fii ci sectoriel bi 2022 gisaat nañ fi nga tey fi benn femelle bu rafet bu am benn tache bu cuulul kooku mooy waaw kooku mooy euh, Ndeye Taning Ndeye Taning euh, di doom tam ci Dugaynde ama macha allah yaay jiitam euh, nekk doomu yaayam nekk doomu magistrat ci côté papam di doomu Arafat. xam nga dañu boole benn doomu magistrat ak Arafat ñu jur jigéen ñu jël ko bu jigéen boobu teg ko ci euh, duugaynde moom mu juddu di Ndeye Taning Senghor xam nga mu nekk añeel boo femelle boo xam ne femelle bu doy waar LCS bi macha allah tëggin boo xam ne daal lañ ko tëgg bu tëggin bu doy waar parce que koo ko gisee rek xam ne li nekk ci moom ci LCS ak beauté moom macha allah quoi. ah téléspectateur Ladoum TV kooku it di doomu du gaynde kooku it di sëtu gaynde sëtu Saalum almetu kafaal ba kooku xam nga ni du ay caaxaan mbaa gisaat nañ fi tamit beneen femelle def rob bu ñuul am nopp bu ñuul de lang mel ni ku takk jaaro kooku mooy kan. waaw kooku euh, kooku tam moom moo di euh, Soda Ngom Soda Ngom di seex tam ci euh, Ndeye Taning Senghor ñoom ñaar nekk ay doomu du gaynde xam te ku ne du gaynde ne gaynde ku ne gaynde ne. Euh, Saalum Saalum. almetu kafaal almetu kafaal ga kooku moom day tàkk muy bay rek di dem kos muy tàkk rek. waaw waaw gis nga ko tey soo leen gisee ñoom ñaar nga xam ne moom kos mu tàkk lañ macha allah euh, kooku moom mooy euh, Soda Ngom ama Soda Ngom macha allah moom itam am na benn portée doomam dafa ñëwul maa ngi ko bàyyee kër ga ama ñu nekk daal ñaar ñoo xam ne moom ñaar ñu am yaakaar la macha allah quoi. man sama numéro téléphone mu ngi nekk 77 566 51 31. di Maodo Malick Diouf borom xar yu tippe yi saa boo fi ñëwee rek gis fi ay xar yoo xam ne xar de qualité tëggin boo xam ne bu mucc ay gis nga jeune mâle bu ndaw boobu ama kooku tam doom la ci euh, doom avenir la ama nga gis beneen añel bi itam kooku doom la ci ñaari kuy mi nga xam ne dama ko bàyyi kër ga moom moo nekk si baas bi nii nekk xar boo xam ne xar bu doy waar la kon affaire bi kan la affaire bi ñaari kuy la ak du gaynde foo du ay caaxaan nee mooy télé bi bégal sama askan